tey nag euh, monsieur le président dañoo ñëwoon ak ab mouvement bu bees bu nga xam ni dañ ko karee ci anam bu wuutee ak ni ñi karee yeneen mouvement bi mouvement bi ñu créé tudde ko UJTL bi ñu ko créé bi ñu xalaatee euh, tur bi ba noppi dañoo wax ni du nekkul ni façon nit ku ne lañ ciy dugal moo tax ñu ne woon buñ xool nombre bu bari waaye dañuy xool nombre boo xam ne ak donte bëriwul waaye dana doon ñu gëm président Thierno Lo gëm coalition Àjjana gëm gëm li ñu def parce que ñaari nit ñooñu ñoo mën a ànd parce que dañoo xam ne am na ay genre jeunes yoo xam ne bu leen fi indee du yàgg président Thierno Lo parce que dafa am ñuy fonctionné te moom da koy wax ci biir waxam à chaque fois di wax ni je préfère. de travailler avec 10 personnes déterminées euh, que, de travailler avec 200 personnes qui ne pourra à rien. moo euh, ma président de 43 la waaye ku décidé na faire euh, parti APD Alliance pour la paix et le développement ànd ak yow tamit ci coalition àddina ñoom tamit woowu nekkul ni damaa ñëw tàll leen loxo rek ñu ñëw d'abord euh, dama leen a xamal kan mooy président Thierno Lo ba noppi. mu nekk ab liggéey liggéeykat boo xam ne dafa am lépp lu muy am avant Abdoulaye di ko jël ministre ba noppi doo ko ñëw ànd ak moom di liggéey ngir Sénégal Sénégal képp nangu na ni moom mii ci politique da ca ñàkkee waaye dooleeku ci parce que ñëpp xam nañ ko ci secteur privé bi. ñoom def na ci vingt trois ans doo ko ñëw nekk ministre ngeen dem ci YouTube ngeen xool ngeen gis formation yi muy defal jigéen ñi di leen defal ay formation en céréales locales en eau de javel di di defal jeunes yi ay formation en informatique loolu lépp di di jëm ci wàllum développement nga xam ne moom loolu rek moo ko ñor boo demee Touba am na suñ benn militante bu tudd foofu Jama Jaxate Jama Jaxate noonu la tudd. Euh, parti bi dafaa dem defal ko formation ci wàllum savon ba fi mu toll nii saabu boobu noonu waa Touba jamono la nga koy wooyee saabu jamono mooy jamono boobu noonu nga xam ne moom moo moom moo nekk ci parti bi ñu ñu ñu demoon defal ko formation boobu loolu lépp di jëm ci wàllu développement yëmbal noor gi boo demee ñëpp jigéen ñëpp da leen defal ay calebasse de solidarité day jox leen ngeen liggéey day dem ba ay un million cinq cent daaru mu si trois millions fa trois millions leen leen joxoon fi mu toll nii ñu ngi ci ay six millions nangam loolu lépp jëm ci wàllu développement ma ne leen mouvement bi ma leen di woo tamit kin koy wooteel buggul ku koy sànni ay xeer buggul ku koy ay nit buggul ku koy jaxase ay nit li mu bëgg mooy ku sañ sa ba jekk am xam-xamam di dox ci wàllu développement kooku moo mën a ànd ak moom liggéey ñoom ñii ñëpp ñoom ñii ñëpp ci loolu ci loolu laa leen woo ñoom nag ku ci nekk dem nga ba xool ba gis qualité yi nga xamni bi bile mo nek ci président Thierno Lo nga doga nango nangoo ñun ci liggéey bi te du yam fi té ku ci nek ci ñom ñi signé na ni paré na pour accompagner Thierno Lo ci bépp activité politique bu muy def kon APD la koy wax ak aljana lepp lo xamni dana ko sumbati ci walu politique ñun man nañ ci compter parce que ci ci def sunu lay katan te mouvement bi di fi day di jël ay nit ñu parce que bu doon xool bu doon def affaire folklore rek mën na bi parce que ñun ay ay étudiant bu ñu ñu ku ñu neex mais dañu xool ñi ne bu fi danañ gëm li ñu liggéey ñu parce que moom mi lay doxee am ay genre fi parce que man sama yaay ci jigéen parti bi la na ci wax képp ku bu képp koo xam ne amul ngor bu mu ànd ak moom donc yooyu nag ay jikko yu raar raar raar raar te ñun ñi dana ci seere dara dem nañ ba xam ni vraiment li gën a jafe ci Sénégal ba tey am na fi muy muy ngor moom rek moom nga fi gis ñu àndoon ak Abdoulaye tey jii koo xam ni mooy taxaw ci mooy taxaw ci Macky Sall di ko xamal ne ko président Abdoulaye sa bàyyi la li nga war def mooy juboo ak moom tey sàppi ñaan def nañ fi émission face to face fii keroog sax daf mujj tournon pañam bi bi mu gisee ñoom Souleymane Ndéné di yëkkati ay kàddu te yu ñagas di ko dimbali ci kaw président Blay nga xam ne moom ni muy fonctionné tey am naa lu ma leen wax te loo xam ne yaakaar naa fàttewoo leen ne newoon naa leen moom toujours te in ci intérêt général lay dox du dox mbukk ci ay ci jëf boppam loolu li ci firnde mooy bi mu nekkee ministre dëkk ba mu dëkk am na koo xam ne moo ko fa njëkk nekk ministre te kooku mosut a jël benn sëriñ da ko yóbbu ci koo nangu moom mii lan def ministre mu xëy suba commencé jël sëñ xal soxna yëmb sëñ mbas abdu xudóor sëñ seex asu fay képp kuy mbàkk mbàkk ci dëkk ba jël la yóbbu la ci président bi laaj loolu ku soxor du ko def kon kii képp kuy ànd moom mën ngaa am ci àdduna su fekkee nga li ci des mooy moom mii njëkk nan dëkk ba mu dëkk am na ko xam ne moo fa njëkk nekk ministre at te kooku safooram sax dëkkutoon Daaru Muxti ministère am doo dem ba dëkk ba xool fa ku dëkk Daaru Muxti moom mii lan fal tey suba mu jël doomi dëkk ba ay ay jeunes yoo xam ne amaguñ vingt-sept ans dugal lañ ci biir ministère bi mooy ñoom Serigne Diop ñoom Mafale Sarr ñoom Kara Diop euh, ministère ba beneen ministre ba fa nekkoon te defutoon noonu dem ba xam ne bu seetaanee lii président Thierno Lô di def ni bu ko continuer dana moom dëkk bi mu commencé bu jëlee benn mu jël ñaar bu jëlee ñett mu jël six loolu nga xam ne kooku képp ku mu jël rek war na koo seetlu parce que buutoon moom du ko jël hmm. loolu ku soxor du ko def hmm, boo gisee tey moom porte bi anti président Abdoulaye Wade moo amoon ko te avant que tey jii ci président Macky Sall tey jii nii guddi nii bu neexoon dem bële wax na ne président Macky Sall li waral loolu mooy dafa dul dem mukk di wax mbiri boppam gars yi saa yu ñu toogee président seen mbiri bopp la koy wax wala seen mbiri famille moom nag bu àgg dafa tudd boppam dafa tudd famille dafa tudd kennam soxlas ak soxlas fay wax ak seen jafe-jafe moo tax fu fëggee président ko dama laa bëgg a gis président ni yow maam amoo intermédiaire ci man loolu nag ay jikko yoo xam ne la amatul ci réew mi ba bokkoon jafe na fi lool ñun moo tax ñu décidé ànd ak moom te yéen tamit ñu leen di woo ci loolu